billah bismillah inna waliyallah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina wa xabibina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asxaabihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu nuyuwaat leen bu baax ziyaarawaat leen comme ñu koy defee saa su ne fii ci seen ISJO Info 7 TV comme niñ koy defee saa su ne seen émission naafile koor ngeen ci ànd ak oustaz Alassane Fall di leen wax rek ngeen abonné te partagé gis nañ ni yéen a koy def mais ngeen yokk ko bu baax a baax a baax incha allah di leen ñaanal tawfeex ak tayseer kon tey dañuy ñëw ci suñu naafila tey muy guddik fukkeel ak juróom-ñeent ñu am fa juróom-benn rakan rakan bu ci nekk da ngay jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng suratul ixlaas muy xul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon kon suñu guddik fukkeel ak juróom ñoo ngi fa war a am juróom-benn rakan raka bu ci nekk nga jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng sóoratul ixlaas muy qul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu war a naafile ci guddi fukkeel ak juróom-ñeent sëriñ bi nee képp ku nga xam ni def nga ko yàlla suñu borom dina la bindal tuyaaba ju yaatoo yaatoo yaatu kon incha allah di leen yokk di leen ñaan rek ngeen fas yéene koo taxawal ndax bu ñu demee bay joxe guddi fukkeel ak juróom-ñeent rek mu mel ni kon weeru koor gi mu ngi dem bu baax a baax yaakaar naa fukki yu mujj rek moom moo ci des kon ngeen yokk góor góorgóorlu rek incha allah bu ko defee rek yàlla suñu borom man ñoo boole ci ñi nga xam ne ñoom lay jéggal waaye boole ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla suñu borom di dugal aljana firdawsi te loolu la jullit bi di rêvé saa su ne kon di leen jaajëfal waaye di leen wax naskurukum kal aada gaayatu sukri li xusni mutaabaatikum maana fi kulli yawm fi muxaadaratikum النوافل في شهر رمضان المبارك في تلفزيون إنفوجيت تي في معكم معكم الأق أستاذ ألاسان فال kon waa di leen wax waa aaxiri daawaana alhamdulilah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.